waaw maa ngi leen di fay maa ngi lay fay pël baax di leen ziar yéen it ah, di baalu ñu baax di baal ñu baax di wax yàlla nañu yàlla boole baal nangu ñu suñu koor nangu ñu suñu jaamu yàlla. voilà. yàgg tase fii nag ci euh, ndogu papis yi. Mhm. Ah, tey jii lan nga ñu mën a waxaat sa diggante ak papis xarit ak ndogu yi ko. ah mais alhamdulilah rek di sant encore ba ñu yàlla maye ñu fekke waat dajaw nañ fi daaw dajawaat fi ren yal na yàlla may ñu koy teewe at yu bëree bëri bari waaw ah, daja mbégte la rek xam nga puisque ku xam koor xam nga waaw xam ci yu mel ni te invité nit ñi def ndoku xam nga am ñu génn àdduna tamit ñu leen rend waale hommage di leen ñaanal loolu daal sant la quoi lool loolu moo ñu fi dajale te defe naa chaque at mu daj la fi di ñaan rek yàlla may ñu tarak fekk ñu ko at yu bëree bëri incha allah. <laughs> a ah, koor moom xanaa moom nekk ci rek jéem def suñu kéem kattan xam nga waaw woor def suñu jaamu yàlla suñu kéem kattan rek def daal li ñu war ci koor gi daal. yenn mbër yi duñu woor fekkee loolu am na yow ñooñu lan nga leen di wax. ah loolu de moom bu ko dee wax dëgg ñàkk jom la <laughs> parce que mbër moo gën a a woor xéeboon yi xéeboon yi sax ñu ngi woor mbër macha allah ku sport yàlla déggoo kàttan moom amul lan lu ko mën a tere woor mais nag ah ku nekk ak sa kii daal eh, weeru koor moom defe naa moom weer boo xam ne nit ñi dañ ci war a profiter comme promotion la moom te benn la am ci at bi waaw buñ ko fekkee moom dañ ci war a profiter def ci lu ñu mën ci jaamu yàlla vraiment. Modou toll Modou tane na. alhamdulilah maa ngi tane alhamdulilah. gars yi euh, ne woon six jours moo des. lamb nag ah. dafa am ca ba xam. ñun bépp sa ñàkk wax ñu bett six jours moo des. six jours moo des ca la. moo des moo day wax dëgg wax dëgg nag loolu moom ci wax dara quoi. non wax dëgg yàlla. te wax lu ma maîtriser wul tamit xam no wax. am loo xam ne moom man man ci sama faju daal ci laa nekk maa ngi faju su tane incha allah ak jàmm ma ñëw bëriwaat vraiment te loolu la ñu bëgg ñoo ngi ci incha allah ñu ngi def lépp lu ñu mën si suñuy rééducation incha allah. lan ngay wax ñi nga xamante ne ñoo toog ci njaaxare tiit jaaxle. ñuy dégg tamit lu nekk lan nga leen ah mais ay tiit moom wax dëgg yàlla moom jaru parce que nu wax chaque fois rek xam nga nekkatuñ gan ci ci daal yàgg nañ ci yàgg nañ déglu neex déglu naqari ba tax dara waruñu mën a teg njàkk nañu jàpp rek sport ak blessure ñoo ñoo ànd xam nga doon ba combat bi jege si yàlla def ndok mu am ci diggante muy blessure ñu ci faju yi ñëpp ñaan rek incha allah ñu tane ak jàmm ñëwaat en forme comme ni ñu defee rek bu soobee yàlla yàlla moo tax euh, li ngeen lan eh, de pour président la dégg ngeen. mais mbër lan moo tax yeneen mbër yi leen ci ndogu bi te ñu defee ko sa kër. waaw non xam nga du man du man maa ko organisé parce que moo ko organisé xam du man maa yëgle du man damay def ñëw ak nit ñi rek comme d'habitude à ah, chaque fois. mais Papis égal Modou Lo. waaw loolu kay kenn weranteetu ko. mais xam nga tamit weeru koor xam nga dafa xar ci lu bari xam nga ñii ñoo ngi ci leneen ñi voyage ak yooyu noonu ba tax na affaire daal du force daal xam nga kii ñu ñëw rek ñëw ñu saafonte après mooy loolu. mais ngi wax ni ki nga xam ne mooy Modou dafa ragal Ama moo tax rek mu créé li nga xamante ne mooy blessure bi lan ah am na yoo xam ne moom jaru sax di ci détaillé quoi parce que ay wax yu yàqu quoi xam nga man aw ma lu ma ragal ci nit ku yàlla ku yàlla sàkk vraiment. dañu blessé ñoo ngi fayu yàlla nañu yàlla may tànn ñëwaat ak jàmm incha allah. loolu sama question xam nga da ngaa jafe. jafe da ngaa jafe. jafe lan la maa jafe ji. wax beeg loolu lan la sa staff la wala yaa ko choisir noonu wax waay. waaw non waaw waaw <laughs> Lamine tontu waaw Lamine tontu dara damaa bëri gerte. macha allah oustaz nga gën a jege ay alxuraan ñu la nekk koy da nga jàng depuis bi nga nekkee xale wala da nga dem. wuy ma wuy ma ma dugal ma dugal waaye saar yi may may may naa ko yàq may naa ko ñoom